أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفقه ونفسي وهمزي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما بقي yi ñu ngi dellusiwaat ak yéen ci jotaay تي ñuy مقدمة الأجرومية di sukkandiku ci chara tuxfa saniya bi nga xamne Yusuf al sheikh Mouhamad al biqai mom moko def tere bi di muqaddimat al ajrumiyya te kiko talif di Mouhamad ibnu Daawud as sanhaji te mu gëna siwe ci ibnu Ajrum ñu ngi suñu jotaay bu mujj ñu ngi yemon ci علامات al nasbi alaamatu nasbi waxoon nañ ne nasbu am na juróomi alaamaat waaw waxoon nañ nasbu am na juróomi alaamaat bi ci njëkkoon euh, mooy al fatha waxoon nañ fatha ñaareel ba moo doon alif ñetteel ba di kasra ñeenteel ba di yaa juróomeel ba di xasfu fatha détaillé woon nañ kañ lay nekk màndarga nasab waxoon nañ ci ñetti place la koy nekk ci benn bi mooy ci ismu mufrad mooy tur woo xam ne tey tegtale nag kenn la moo xam kenn ku góor wala ku jigéen moo xam kooku nit la wala bàyyi ma leneen la mooy benn place ñaareel palace bi mooy jëmu taksir tam fata dafay nekk alamatu nasmi ak ci fin mudaare su fekkee Euh, arafu nasab def caa dugg maanaam fi'il mudaari su fekkee ne dafa am araf bu ko jiitu ci orof ci arafu nasab bi danañ ko xamee ci kenam te mooy lu mel ni an wala lan wala izan wala kay waaye beneen chart tam mooy euh, te dara jokk wul ca muj ga kon loo cee déggee bu dara jokkoo ca muj ga loola duutul mën a nekk léegi nag lay jokk ca muj ga mën a nekk noonu niswa boobaa duutul نسب ولا مناك نون التوكيد آه، ثقيلة ولا خفيفة مع نون بدغر بدغر ولا بوف ولا آه، ولا بقوا والجماعة ولا ألف الاثنين ولا ياء المخاطب يوسف جوكو أتي بدي مانام دوت نك نسب وتم نكون بوكنا شي شرط بنا شي حرف نسب دغو ñaarel ba bu bu dara jokk ca mujj ga ci yooyu ñu waxoon kon boobu mooy li jëm ci fatha euh, bañ jógee ci fatha waxoon nañ ci alif mooy alif kañ lay wuutu fatha ndax fatha mooy cosaan bi yeneen ñeenti ay kuutaay lañ ci moom ñu wax ne alif euh, day wuutu fatha nekk mandarga nasab ci juróomi tur yi nga xam ne moom la ñuy wax abun ak axun ak xamun ak fu ak zuu nga xam ne booba soo nekk alam ci ci xaalatu nas bi da naan bu doon comme tey raaytu abaka axaaka xamaaka ak fuuka ak zamal loolu ngay wax ndaxte moom la nama ci wama ashba zalika ba mu waxoon ak lu niroog loolu mooy muy lu mel muy ñeneen ñett yi des yi euh, foofu nag lañ yemoon tey ñu war a commencé ci ñetteelu mandarga bi ci yi nga xam ne dañu nekk alaamatan lin nas bi ndax waxoon nañ fatha wax alif kon tey ñu ngi ñëw ci kasra incha allah ak euh, ba cay toppaat mooy yi nga xam ne ba léegi kon ñu ngi ci ñetteel bi bu jógee ci ñetteel bi incha allah dinañ ñëw tam ci ñeenteel bi te mooy yaa ak ci juróomeel bi mooy xasfun nuun euh, bu ci xaajee tam ñu dugaale ci alamatul xafdi mooy wala alamatul jar am na benn i'rab bu ñu joxe woon laata ñuy tàqalikoo euh, ne nañ ko i'rab xam naa dañ ciy jaaraat rek muy ixtarim abaka واخاك وزل خلق الرفيع احترم موجخل تر اباك سباي respect سباي واخاك اكسفرير وزل خلق الرفيع اكو ام جيكوبو كوي احترم بنكون اعراب بنان فعل امر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره انت اباك مفعول به منصوب بالألف من منصوب وعلامة نسبه ألف لأنه لأنه من الأسماء الخمسة أبا مضاف كاف مضاف إلى مبني على فتح في محل جر وأخاك واو حرف عطف أخاك معطوف على أباك طول معطوف على المنصوب منصوب وعلامة نسبه الألف نيابة عن الفتح لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف كاف مضاف إلى مبني على فتح في محل جر وذا الخلق واو حرف عطف ذا معطوف على أباك منصوب وعلامة النصب الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة ذا مضاف الخلق مضاف إليه مجرور بالكسرة فلنجد مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره وهو منعوت الرفيع نعت مجرور وعلامة جره كسرة الظاهرة في آخره kon boobu mo doon i'rab bi legi nak ñu ñëw ci bind bi kon wax nañ wa amal borom téere bi ne wa amal kasratu fatakunu alamatan lin nasbi fi jam'il muannasi salim ne wa amal kasratu kasra fatakunu takunu day nekk alamatan din mandarga di xàmmeekaay lin nasbi ñal nasab في جمع المؤنث السالم تي جمع بو خامني جيجن لا تا موتي تي اك سوبيكو موي جمع مؤنث سالم مانام بولو بو خامني ولا بات بو خامني دنجكو جمع جمع مؤنث سالم جمع مؤنث سالم نك بو نكوي دافال اب بات بو نيكون مؤنث ا آه، دانيي يوكو اب الف ا آه، موي الف اب قتي اك اب تا بو خامني دا فاي با su fekkee ne baat bi dafa amoon dafa jeexeewoon ab booba ta boobu dañ koy effacé may dañ koy dindi ba pare door a yokk alif xëcc ba ca araf bu mujj ba après yokk taa bu ubbeeku ba ci misaal tey boo ne woon fatimatu xam kenn nit la fatimatu kenn ku jigéen la nga bëgg koo def jam u muannas léegi tuugoogu mooy taa boobu tëju da nga koy effacé boo ko effacé ba mu des fatima xam ma mooy des mooy araf mujj léegi ma boobu da nga koy eh, yokkal ab alif bu koy xëcc mu nekk Fatima après nga yokk nga yokk ci ginnaaw alif nga deg ci ab taabu ubbeeku mu nekk Fatima tun Fatima tun mu daal di nekk jamu mu annas salim noonu la defee jam mu annas jamu boo xam ne ay jigéen la mooy pluriel féminin eh, su fekkee nag baat bi nga xam ne moom ngay def jamu mu annas salim jeexewul ab taabu tëju boobaa da ngay ñëw rek eh, ca muj ga nga yokk ci ab alif bu xëccaan ak ab taabu ubbe comme boo ne bu zaynabu zaynabu baatub zaynabu mi ngi jeexee baawoon bu léegi soo ñëwoon de bëgg koo def jamu na salim da ngay yokk ci eh, après baa bi da nga ci yokk ab alif xëcc après yokk ci ab taabu ubbeeku léegi comme yokk nga ci alif xëcc te alif xëcc fatxa moo koy fatxa lay xëcc kon léegi dootoo wax zaynabu mais zaynaba tun ngay wax zaynabaat bu dee mariamu tamit bu doon mariamu tamit même chose même chose ngay defaat da ngay ñëw ba ci mariam ca miim ga nga yokku ci miim gi nga tàllal ko yokku ci ab alif xëcc après ak ta bu ubbeeku mu daal di nekk mariamaatun noonu ngay def tam ak euh, daarun nga am daaraat bu fekkee ne danga ko bëgg def ay daaraat ci misaal euh, ak yeneen yu yu yu mel noonu kon noonu la ñuy defee jamul muannas salim mooy jamu pluriel boo xam ne féminin la mu tax ñu ne ko saalim nag euh, mooy ne dafa mucc ci ak soppiku bokkul ak jamu taksir xam bu doon jamu taksir mooy jamu bi da nga ko damate mooy baat bi dana am ak coppiku waxoon nañ ko ca gannaaw jamu taksir ni muy soppeeku mais bu de jamaanu saalim parce que du am euh, du am benn soppeeku ci mujj da ngay yokk rek ab alif ak après mu daal di jeex loolu tax ñu naan ko jamu muannas saalim mook jamu muzakkar saalim tam no tax ñu naan saalim googu looloo ko ci indi mooy ne dañoo mucc ci ak coppeeku moo xam ci seeni maas wala ci seeni araf léegi kon nañ mu ne amal kasratu kasra fatakun day nekk alamatan di mandarga li nas bi ñel nasab fi jam il muannasi salim ci jam u boo xam ne ay jigéen la te mucc ci soppeeku léegi ñu joxe ci misaal comme innal fatayaati innal fatayaati nashitaati la budda an yuxaqiqna amalahunna <laughs> innal fatayaati nachiitaati xale yu jigéen yi nga xam ne dañoo sawar di góorgóorlu di def effort la budda an yuxaqiq la amalahunna alay sago dinañu réaliser seeni bëgg-bëgg soo xoolee baatu alfatayaati innal fatayaati soo xoolee fatayaati jamu muannas saalim la kon jamu la boo xam ne jigéen la te mucc na ci soppeeku te boo xoolee tam mansuub lu tax ñu nekk mansuub parce que ismu inna la te xam ngeen ne inna ak i e, mbokkam dañuy dugg ci jumla ismiya suñ ca duggee ñu nasab la waroon a nekk mubtada la waroon nekk xabar ñu raful ko day kon alamatu nasb bi nag fii boo xoolee fatayaati dañu wax waxuñ innal fatayaata kon mais fii lu tax loolu danaan alamatu nasb bi al kasra lay doon léegi kasra googu نيابة عن الفتحة يعني عوضا عن الفتحة ولا نيابة عن الفتحة مموت فتحة بفور هناك سو خولي سوز النشيطات نون إن الفتيات النشيطات هم النشيطات نعت لتي فتيات لكن تنعت تي منصوب بينك منصوب كون مومد منصوب له ما هو علامة نصبه كسرة لأنه جمع مؤنث سالم وعلامة نصبه كون الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم kon fii rek benn bii rek moom mooy benn boo xam ne moom mooy wuutu euh, euh, moom la fi kasra di wuutu fatha ci ala ci ci ci palaasu nasab fii rek la mu ci jamono salim kon boobu yomb na boobu rek la du beneen waaw ci jamono salim kese la kasra di wuutu fatha léegi eh, kon boobu mooy alkasra bu ce bu ce mooy bu ñetteel bi bu ñeenteel bi ci alamatu nas bi mooy aliya borom téere bi ne wa am aliya bu dee yaa moom fa tekkun day nekk alamatan di mandarga lil nas bi ñal nasab fi tasniyati ci musanna mooy mooy ñaar diyal tur woo xam ne day wane ne ñii ñaar lañ moo xam ñaar ñu góor wala ñaar ñu jigéen wal jam'i ak jamu boo xam ne jamu góor la maanaam jamu muzakkar salim kon yaa day nekk mandarga nasab ci musanna muy baat bi wane ne ñaar la wal jami ak jamu muzakkar salim maanaam jamu boo xam ne ay góor la moom it mu ci coppeeku eh, musanna ya waxoon nañ ko ca gannaaw mooy ñaar bépp baat boo xam ne kenn la woon soo ko bëggee def ñaar da ngay dem ca araf ba mujj ca baat ba nga yokk ci ab alif ak ab noon fekkee alamatu rafi la ci place rafa la waxoon nañ ko ci ginnaaw su fekkee nag dafa nekk ci place um nasab comme bu ko inna jiitoon wala mu nekk maful bihi wala yu mel noonu wala mu nekk xaal wala yeneen yu mel noonu ci ci nawaasi bi boobaa yaa ak nuun lay jeexe lay jeexee maanaam la nga defoon alif ak nuun yaa nga koy def ak nuun yaa bi nga mask ab sukun euh, nuun ba nga kasra ko waaw ah, nuunu musanna dañ koy kasra yaaba nga mas ko sukun bu bu bu wér bu leer nañ soo amoon tey rajulun xam mooy benn góor soo ko bëggee def ñaari góor da nga naan eh, bu dee ci xaalatu rafi da nga yokk alif ak ab nuun ca mujj ga xam laam la jeexewoon alif ak nuun nga yokk mu nekk rajulaani eh, su fekkee ne ci xaalatu nasb la ma comme wax ni mooy fu muy nekkee mansub eh, boobaa yaa ngay yokk ginnaaw laam yaa nga yokk ak nun yaa bi sukun ko sukun bu leer nañ mu nekk rajulayni waaw ci misaal boo noon raaytu rajulayni gis naa ñaari góor bu doon imraatun même chose bu dee xaalis raf nga ne imraatayni mais booy buy nas nga ne imraatayni raaytu imraatayni raaytu imraatayni gis naa ñaari soxna kon loolu mooy yaawu musanna léegi nag euh, liy wuute bi euh, pour boo bëggee xam bu dee yaa bu dee jàmm zakkar saalim tam moom euh, moom it la nekkoon isturubu ba muy nekk kenn da ngay yokk ca muj ga rek yaa ak nuun su fekkee dafa nekk ci xaalatul nas bi tam nekk jàmm zakkar saalim yaa nga yokkat ak nuun comme ni nga yokkee ak nuun ci musanna mais li wuutale yaa gi ci musanna ak yaa gi ci jàmm zakkar saalim loolu xam ko baax na ndax bu dee yaa ci musanna la jiitu yaaba la jiitu yaaba toujours xool ko bu baax day nekk mafto dañ koy fata la nekk ca gannaaw yaaga dañ koy jar te la nekk ca gannaaw yaaga mooy noon gi kon li jiitu yaabi dañ koy fatxa la ñëw après yaabi dañ koy kasra mais bu dee ci jam um muzakkar salim nag la jiitu yaaba dañ koy kasra la ñëw ci ginnaaw yaaba dañ koy fatxa kon kon contraire bi lay doon bu dee ci musanna la jiitu yaaba dañ koy fatha la topp ci yaaba ñu kasra ko bu dee ci jamu muzakkar salim pour nga xàmmee leen la jiitu yaaba dañ koy kasra la ñëw ci ginnaaw yaaba ñu fatha ko dama ciy joxe misaal comme boo ne innal muttaqina fi jannati wa uyun innal muttaqina boo xoolee inna bi xarfu nasbin la al muttaqina nekk ismu inna mansubun wa calaamatu nasbihi alyaa li annahu jam'u muzakkar saalim hakaza wa calaamatu nasbihi alyaa li annahu jam'u muzakkar saalim gis ngeen fii liñ waxoon innal muttaqiina suñ xoolee avant yaa bi dañ koo kasra après yaa bi dañ koo fatxa muttaqiina te bu fële nag bañ xoolee ca musanna avant yaa bi dañ koo fatxa woon raaytu rajulayni gis nga avant bi dañ koo fatxa woon après yaa bi dañ koo kasra muy ni kon loolu mooy farq bi pour nga xàmmee yaawu musanna ak yaawu muzakkar salim lan moo leen wuutale soo ko soo soo bii rek da mën a xàmmee lan mooy musanna ak lan mooy jam muzakkar euh, kon euh, ci noonu la ñuy xamee ne euh, yaa day wuutu fatxa ci ñaari place rek mooy ci musanna ak ci jam muzakkar salim léegi bu ñëwee ci eh, xasfu niyabatu xasfu nun ani fatha mooy nun xam waxoon nañ tam eh, xasfu nun day nekk alamatan lil nas bi borom téere bi ne wa amma xasfu nun bu dee xasfu nun nag mu ne fateku fa yakunu day nekk alaamatan di mandarga li nasbi ñel nasab fil afaalil xamsati ci fiil yi nga xam ne juróom lan fiil yi nekk juróom waxoon nañ ko ca gannaaw mooy bépp fiil mudaari boo xam ne jokk na ca mujj ga la jokk ca mujj ga waaw buy tegtale ne mbooloo moo def ci ci wala alif buy wane ne ñaar ko def wala yaa buy tegtale ne kenn ku jigéen a ko def wala Eh, kenn ku jigéen hakada kon loolu la waaw boobu nag mën na nekk ñi ngay waxal ñu bari wala ñu ñu fi nekkut ñu bari eh, alif ba mën na nekk ñaar ñu ngay waxal wala ñaar ñu fi nekkut moo xam ay góor wala ay jigéen yaa bi nag kenn ku jigéen rek ki ngay waxal lay nekk kon yooyu mooy al afalul xamsa nga xam ne alati yi nga xam ne rafuha ñing ko rafaaye woon bi subuuti nuun ci saxuk nuun buñ fàttalikoo ca gannaaw waxoon nañ subuutu nuun day nekk alamatan li rafin fil afaani al xamsa waaw kon mi ngi noonu kon nag subuutu nuun moo doon alamat rafi boo ñëwee alamat nasi mooy xasfu nuun ci misaal tey tanaaluuna lan doon wax mooy am ngeen mais soo koy soo ci soo koy defal xasfu nuun soo ci dugalee lan دعنا لن تنالوا بسم الله ماشي القرآن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون كسم فبوخ ولا نيار نيون نفا لن تنالوا البر حتى تنفقوا لن بي ما يحرف الناس بتنالوا دفع المدارة منصوب وعلامة نسبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل البر لإداد إنك مفعول به منصوب وعلامة نسبه الفتح الظاهرة في آخره حتى تنفق حتى لإداد إنك حرف غاية ونسب وجر تنفقونك فان مدار مرفوع بأن مدمرة بعد حتى موت أن قنب أبري حتى وعلامة النسب حذف النون لأنه من الأفعال الخمس والواو ضمير متصل آه، مبني على السكون في محل رفع فاعل هكذا مما تحبون دجار اك آه، مجرور الى اخره آه، اك آه، اسم موصول ثم جملة السلة هكذا كن حذف النون دينك علامة للنسب أفعال الخمسة لولو جرنا بايخل بين المثال كن بونيون لن تفعلي الشر لن تفعلي الشر يسرني أن يدرس لن تفعلي سوف xoolee لن day daal حرف نصب تفعلي فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع أو في محل آه، آه، رفع نعم فاعل في محل رفع فاعل آه، يسرني ممسوز يسر دنك فان مضارع مرفوع ونون للوقاية يا بنك مفعول مقدم أن يدرس عن حرف نصب يدرس فعل مضارع منصوب وعلامة نسبه حذف النون لأنه من الأفعال القمصة والألف ضمير متصل من على سكون في محل رفع فاعل وأن وما بعدها في تأويل المصدر فاعل يسر هكذا ah, par ce que as wal aslu mooy yasuruni dirasatuka ah. ah, eh, sa njàng sam njàng dina ma content loo kon eh, mi ngi noonu yooyu mooy eh, eh, alamatu nas bi kon ñaar yeen njëkkoon a wax eh, te mooy fathaak alif tey ñu wax eh, kasra bi uh -huh, ak yaa bi ak xasfu nuun kon alamatu nas bi jeex ñu ñëw ci alamatul qafdi alaamaatul qasdi wala nga ne alaamaatul jarri yooyu nag eh, comme ni ko borom teer bi waxee nee na walil qasdi ñal na qasd mooy jar te mooy mask suuf wala lu koy wuutu neen am na salaasu alaamaati ñetti xàmmeekaay bu njëkk bi mooy alkasratu te mooy cosaan bi wal yaa ak yaa wal fatxa ñaar yooyu dañuy wuutu cosaan bi kon ñoom ñaar ay Euh, kuutaay lañ maanaam ay doom lañ ci kasra kon benn bu nekk ci mandarga yooyu nag am na ci ay place yu muy nekkee moom la ñu leeral nii bi borom téere bi njëkkee kasra bi mu njëkkontu nee na fa amal kasratu mu ne bu dee kasra fa takun day nekk alaamatan di mandarga lil xafdi ñel jar fi thalathati mawadia ci ñetti place ci ñetti bërëb kon ci ñetti place ci ñetti bërëb la kasra di nekke mandargam jar bu njëkk mu ne fil ismil mufrad ci tur boo xam ne day tekki ne kenn la moo xam kenn ku góor wala ku jigéen al munsarif boo xam ne nangoo naa sopparndiku di nekk ñaar di nekk ñett ah, ak lu ko ëpp waaye itam nekk boo xam ne dana nangu ñu tanwin ko maanaam ñu man koo maas eh, dammatay ni wala fatxatay ni wala kasatay ni waaye bu fekkee nanguta soppeeku maanaam nanguwul ñu maas ko tanwin ca mujj ga boobaa du mën a kasraw waaw kon loolu jar bàyyi xel par exemple soo ne marartu bi muhammadin baatu muhammadin ndax baatu muhammad man nangu naa mas tanwin maanaam nangu nañu mas ko dammateen wala fatateen wala kasateen waaw raditu an saidin gërëm naa said ak ajabani xuluxul fata ajabani yem ma xuluxul fata ci koy ah, camsi boo xoolee eh, muhammad ak said ak fata ku ci nek ismu mufrad la nangu nañu tanwin ko ci mujga kon ñom ñep ay ay ismu mufrad lan ba pare majrur la alamatu jar bi nek kasra zahira fil ci ñaari tur yu njëkk yi muhammad ak said mais alamatul xaft bi day nek kasra muqaddara alal alif mana min zuhuri at ta'azzur ci ismu moy al fata kon fofu xuluxu mudaaf la alfata mudaaf ilayhi مجور وعلامة جره الكسر المقدر على الألف منع من ظهورها التعذر كون كسر بمنا فيه من ننكو نتله أه، بوبوي أه، بلاس بنجك بنيارل بلاس بيتي في كسر جنك علامة للقفد موي جمع التكسير بوخمنا المنصرف مومت ننغونا سبكو أه، ننغونا سبكو waaw waxoon nañ euh, lan mooy lan lañ namm ci luy soppeeku mooy loo xam na am nangu tan tanwin ca mujj ga kon bu ko nanguwul rek euh, dutul du mën a nekk man ci misaal tey man nga wax marartu birijaalin sujaanin romb naa ay góor yoo xam ne yu jàmbaare la ñu ñeme soo xoolee rijaalin ak sujaanin ku ci nekk ci ñoom ñaar jamu taksir la ba pare munsarif mën naa mën naa nangoo soppeeku maanaam day soppeeku lu tax mooy nangu na tanwin ñu tanwin ko ci mujj ke manam ñu maas ko fatxatayni wala kasratayni wala dammatayni so xole kon rijalin majrur bil ba wa alamatu jarrihi al kasratu zahira ala akhirih waaw xarfu atfi la sujaan maatuf ala rijal wa alamatu والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جريء الكسرة الظاهرة في آخره ما كسر بيتم لق لق كم واحد من نفعي وياه من نكون نتلتم كم بناون مررت بال أسارة ما ينجب علول نكتي ألف مقصورة لك لينك أسارة ديدا نك جمع تكسير منصرف لقاء مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر نيارلو مانرغ نيتلو كيبي بلاص بيتي Euh, place yi nga xam ne euh, place jar la kasra dafay ñëw nekk alamatan lil xafti maanaam lil jar mooy jamul muannas salim moom xamoon nañ ko ci waxoon nañ ko ci li rek ci alamatu nas yi waxoon nañ lan mooy jamu muannas salim fàttali woon nañ ko moom i dañ koy jar waaw te alama mandarga jaram day nekk kasra boo xam ne bu feeñ ca mujj ga la ci misaal boo ne marartu bil hindaati mooy romb naa hind ak ujibtu bi axbaari almutafawiqaati yem naa xabaar yi ñi nga xam ne dañoo am ay place yu kawe maanaam dañoo am ah, martaba yu am solo ci seen njàng wala ci seen examen ah, loolu soo xoolee maratu finlun wafaain la bilhindaati baa bi day nekk xarfu jar alhindaati nekk ismun majruurun bil baa wa alamatu jarri al kasra fi axirihi kon boobu njëkk kasra kon mi ngi noonu day nekk alamatan lil qafdi ci salaas ci ñetti place ism mufrad ak jamu taksi ak jamu anas salim léegi mu ñëw nag ci yaa bu ne wa amal yaa bu dee yaa nag moom fatakun day nekk alamatan di mandarga lil qafdi ñel jar moom it fii salaasati mawaada ci ñetti place bu njëkk bi fil asmail xamsati ci tur yi nga xam ne euh, mooy ci juróomi turi yi te waxoon nañ ko ca gannaaw muy abun axun xamun fuuzu ñom seen mandarga jar ñoom juróomi tur yi waxoon nañ mandar seen mandarga rafa moo doon waaw seen mandarga nasab moo doon alif mais seen mandarga jar moom mooy yaa kon foo waxoon abaka da wax abika foo waxoon zu wala za da wax zi motax nga marartu bi zi malin romb ci borom alal zi kon bi xarfu jar la zi majrurun bi bil ba wa alamatu jari al aliya niyabatan an al kasra li annahu min al asma al khamsa zi mudaf mal al mudaf ilay majrur ujibtu bi axlaaqi aqiika yem na sa jikkoo mbokk mi gis nga axlaaq day nekk mudaaf aqiika nekk mudaaf ilayhi majrur wa alamatu jarrihi نيابة عن كسر لأنه من الأسماء الخمسة وحلم أبيك يمنا سجكوي فرير وحلم أبيك أكثر لبطو باي سبابا أبيك أوكي. حلم دينك مضاف أبيك تمنك مضاف إليه مجروب على متجرية عليا نيابة عن كسر لأنه من الأسماء الخمسة وأناتي حميك أكلوتك ولا تيوك سغورو حميك وخون موي غورو وراح ورائحتي فيك الزكية أكثر خيتو جيمينغو neex gis nga fofu tam fii ka bi day daal di nekk fii raiha nekk mudaaf fii mu nekk mudaaf fii di majruur al kasra ni yaban an fatha no aliya yaban an kasra li annahu min al asmaa al xams kon day nekk fi al asmaa al xamsa wa fi tasniya ak ci musanna musanna tam bi nga xam ne da doon rafaaye alif di nasabe yaa momit nun lay jare wal jam'i ak jam'u muzakkar salim momit it no yaa lay jare di moins wal jami jam muzakkar salim te moom it yaa lay jare kon euh, musanna soo soo ne tey sallamtu ala sadiqayni nuyu naa sama ñaari xarit yi ak ujibtu bi raj bir rajulayni yéem naa ñaari gaay yi soo xoolee yëpp sadiqayni ak rajulayni yëpp ku ci nekk day teg wane na ñaar la ku ci nekk jeexee na yaa buñ fata la ko jiitu ñu kasra nekk ci ginnaaw kon dañ ko jar lako jar mooy xarfu jar bi ko jiitu ala bi fële ci sadiqayni bi ca rajulayni muy baa bi waaw léegi nag mandarga jar bi mooy yaa parce que lu tax musanna lañ jëm muzakkar salim te même soos moom it yaa lay jare euh, ginnaaw ba mooy rafaaye waaw di nasabe euh, yaa encore yaa lay jare man nga wax par exemple farihtu bi nahdatil muslimin bég naa ci avancement bi nga xam ne jullit ñi am nañ ko wa qushuu il muminin ak toroxlu nga xam jullit ñi dañ koy toroxlu koku tam gis nga so xoolee muslimin ak muminin bin wax yëpp ku ci nek mudaf ilay la majrur wa mat jari aliya la ko jitu gis nga dañ ko kasra la top ci ginaaw ya bi dañ ko fatha to lolu la ñu non lañu xamé jamu ya ci jam muzakkar salim bu dee fatxa nag mom day nek alamatan lil xafdi ci ben place rek moy filismi lizi la yansarif ci tour bo xamne du soppeku motam ne wa amal fatah bu dee fatah fata kon day nek alaamatan dil di mandal dil khaf di ñeen xafat filis melesi ci tour bo xamne la laa yeen du soppeku moy du nangu tanwin inshallah allah buñ ñëwaatee